salaamaaleykum mbokk internet dakar net point com comme ni ñu ko defee saa su nekk tey moo a nekk premier jour koor dañuy def lu lu ñëw leen xool leen gars yi ne lañ ko dundee par rapport ak daaw gis nañoo daaw Covid bi heure bi daanoo gis kenn tey nag dañuy jéem a dugg ci biir xool gars yi laaj leen na leen daan dundee euh, euh, koor gi di laaj leen aussi tamit ban situation la ñu am ci problème bi ñuy ñëw ak yoon bi gis nañ ne xat na lu ci mënti am rek après na leen ko andil incha leen dugg xool tumaane jaajëf. waaw ñu leen di di bi. dana la doon laaj léegi te nan nga dundee à premier jour koor bi par rapport daaw Covid bi moo taxoon amul woon. yee eh, kooru daaw daa metti woon ñun taluñu woon jaay taluñu woon jënd heure bi na fekk ñun ñë daaw kay du ren a ko tane ndax ñu ngi toog si mbedd mi di liggéey heure bi daaw kenn nekkul si mbedd mi ñëpp a ngi daw di tëltëli amoo loo lekk amoo loo naan kon sant yàlla comme que ñu ngi toog ba di ko nettali tey di ko fekkee rek kon naan sant. mais affaire euh, dafa yokk wala dafa seer njaay mi njaay mi dafa yokk fi mu toll nii dañoo yoruñu bagage marché bi looy doon jënd 1000 francs yaa ngi ko jënd 2000 yëfi Sonko yi daal moo ñu laal ak xale yi tëj Auchan yi dañoo xiif na moo tax ñu tëj yi ndax dëkk bi dafa metti ah, ok ñu lay jaajëfal kàddu yi. waaw loolu kontaan nañ sama goro. waaw xam nga daaw daaw moom woor nan xam nga couvre-feu am na ak corona bi métti woon na trop parce que daaw da ngay woor sax xam nga bëgg a génn dem entraînement doo mën a dem fenn mais ren moom macha allah moom ren moom moom moom. macha allah. non noo gisee tamit circulation yi gars yi a dem seen kër ndogu. non circulation yi moom xam nga yenn saa yi day bari yenn saa yi mooy loolu parce que démb damaa wooroon boo xoolee démb fee maa ngi fa jógee ay 19h ay 20h laag si mais tey tel naa jóg moom tey moom amul amul moom waa gis nga macha allah neex na de ndax féex na tàngul daal macha allah nañ ko commencé na yal nañ ko continuer si jàmm ak salaam. si tamit ah, ban jàngat nga ci am kooru daaw ak kooru ren ñu gisoon kooru daaw tombé corona bi gars yi dafa ñu couvre feu nag nga ko dundee ak ak ak bu ren. metti woon na trop moom metti woon na trop dund nañ ko mais daaw moom macha allah nag metti na lool lool lool mais ren gi moom yëg nañ suñu bopp moom yal nañ ko continuer nii si jàmm ak salaam. mais njaay bi mi ngi dox wala. ngi tane tuuti rek client yaa ngi ñëw ndànk ndànk rek commencement koor moom nii lay mel saa su ne ñoo ngi ñëw nag macha allah. affaire yi seeru. waaw seer na moom Ndiaye moom lépp instant lépp la ñu yokk lépp lépp loo bëgg a laara ñu teg seen loxo moom yokk nañ ko moom mais sant yàlla rek sant yàlla bu baax. waaw bu ren bi de wax dëgg yàlla bu ren bi moom macha allah ndax euh, mën naa wax bu ren bi moom nu mu mën di mel moo tane bu daaw bi ndax pour l'instant daaw heure bi ñu si bëri suñu kër lañ ko defee mais nag même sama borom si bi ndimbal nañu taxoon ñi ko def suñu kër instant yi si bëri sama borom fangal nañu ko ba mu xaw a sori xam naa pour l'instant sax ñu ngi si yoon pour de pour jógee fi waaw comme donc Euh, nan nga euh, ak kii ba ba mi ngi ñëw wala client yi ñi ngi ñëw wala. waaw client yi moom alhamdulilah alhamdulilah ndax ñi ngi ñëw moom macha allah ngi ñëw moom ñi ngi ñëw baax baax. waaw daaw moom dafa métti woon moom daaw moom métti woon na trop sax par rapport ak ren jii waaye nag sant yàlla bu baax rek. Ah, aussi ah, nan nga gisee tamit ah, ba ba client ñi ngi ñëw ba léegi wala. ah waaw ñi ngi sant bu baax client yi moom xam nga xam naa première jour bi moo tax ñu xaw a raar quoi mais nag lépp si loxoy yàlla rek. mais ci circulation bi gars yi war a dem ñibbi yooyu noonu. waaw gars yi moom ñu ngi dem ak dikk. waaw ba ñu ngi dem ak dikk mais waaw ba tey rek comme d'habitude